waaw mais normal parce que c'est c'est un parti boo xamante ni bu ne defar laaj réorganisation parti bu bu bees la on est un parti contemporain am nañ ko dix ans lañ amagum am na yeneen instance yeneen mouvement yi dugg ci parti bi mhm. c'est normal que ñu réorganiser waat parti bi à la base donc loolu la ci jublu te aussi bul fàtte ni président Ousmane Sonko bëggoon na def nemmeeku tour à l'époque mhm. gars yi xañ ko ko fu mu dem gendarme yi dar ko ñu koy jabul di ko empêcher nemme maintenant le moment dem delluwaat ci sénégalais yi jaajëfal leen njukkal leen ci victoire bi ñu am. est-ce qu'il doit avoir ce temps en tant que premier ministre. bien sûr pourquoi pas il a peut-être il aura ses week yoo xamante ni il fera étape par étape dem dem dem ju dellu ci ci base bi waxtaan ak ñoom loolu moom je pense. y' a y' a aussi non la preuve bi muy def euh, réunion avec son bureau politique il a pris son véhicule personnel ses gardes rapprochés yu mu amoon. Mhm. à l'époque donc utiliser benn moo ëpp donc ñun dañoo woote. mais dans les deux cas y' a un problème. parce que mm. tey utiliser les moyens de l' Euh, mën nañu wax que ne daf ko utiliser pour euh, son propre intérêt loolu mën nañ ko dénoncer bu ko defoon bu ko deful aussi sécurité day day nekk en jeu maanaam c'est premier ministre même bu fekkee daf bàyyi la sécurité bi ko état bi affrété euh, les véhicules yi nga xam ne am na sécurité jël li nga xam ne moom ngeen moom waa Pastef est-ce que c'est assez prudent aussi non mais gisoo la preuve ñun dañ ne képp ku nekk président de la République suñuy texte parti mhm. mënatoo nekk mënoo occuper poste si Pastef la preuve Diomaye président Diomaye Faye le secrétaire général du parti mhm. biñ ko bi mu ñëwee à la magistrature suprême nekk président de la république dafa démissionné postam secrétaire général Ayib Daffé honorable député moom moo ko remplacé mhm. maintenant le président Ousmane Sonko il a une double casquette parce que il est premier ministre mais aussi il est chef de parti donc c'est normal que mu dem saytu les instances de base waxtaan ak ñoom loolu aussi je pense kenn ko bañal